asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. monsieur le maire de la ville de Touba monsieur Abdou Lahad Ka ñi ngi lay nuyu yow ak délégation bi nga àndal di la sant bu baax a baax a baax a baax xam nañ sa taxawaay ci dëkk bi xam nañ sa xat ci journée wu tey bi ca bàyyi nga li nga waroon a def lépp ñëw teew si fii te jiitu na nga yabal ab délégation mu jiitu la fi kon li ngay ñu jàppe xam nañu ko bàyyi nañ ko xel ca danañ ci gën a doole góorgóorlu ñu ngi lay sant bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Serigne Saliou Dieng ñi ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay te di la sant. te di la gërëm bu lëg lekkee aloom rek na ko gërëme coy lépp lu ñu man yow la kon ñu ngi lay sant bu baax a baax maa ngi sant waa janatul maxwaa yi yépp ak waa buqaatul mubaarak buqaatul mubaarak délégation bu fa jógee ñu mën ci lim sama nijaay mbay sàll ak Ousmane Talla Magane Mbeng jox leen nuyoo bi ñu joxal ñu ko ña fa bàyyeekoo ñëpp di leen sant bu baax a baax a baax barki Dembo Ndiaye lañu woote ba xottu Mubaarak lu mel nii monsieur le maire nga déplacé wu ñëw fa ñu woote waat ko Jannatul Mahwa nga déplacé waat ñëw yaa ngi am ay réunion yoo war a def ak la ministre de l'intérieur ci tréewul da nga leen ñaan ni da ngay ñëw fii ba pare doo ko dem si réunion bi xam nañ journée bi ni mu xatee tey kon ñu ngi lay sant. maa ngi sant jigéeni jannatul mahwa yépp di jiital ci cant gi soxna Ayda Ñang merci soxna Ayda Ñang benn yoon ba muy ñetti yoon sant soxna Malado Fall ak soxna Ami Ngom soxna Njaxat Fall di jeuwriñ sëñ Cheikh bintou Fall mi ngi ci jotaay bi maa ngi koy beral am nuyom di sant bu baakha a baakha baax nuyu wa de jannatul mahwa ak bu mubarak mubaarak di nuyu jeunes yi di ja jaa ci Basiiru Mbuub gis nañu tawayam rafet na lol ma ngi nuyu jeunesse su jannatul mahwa bi commencé ci Ndofane Sey Amdi mbub Serigne Saliou ndjay ak Alaaji dam Diop depuis si ci suba ba léegi ñofi nek yoré organisation bi kon ñi ngi leen di sante bu baaxa baax maa ngi sant soxna Loota Ñang ndax depuis sa suba ba léegi mi ngi fi maa ngi sant bu baax beneen délégation boo xam ne si nii ci lay lim kilifa gu tedd gi toog ci sama wet di sëriñ Mara Mbàkke ñu mën koo xoole maam Thierno Ibrahima Fati ndamal daaru muy Fallu Joob Madakaw ñëw na fi ci ñaari kasket ànd na ak monsieur le maire jiitu ko fi ak Abdoulahat Faye parce que monsieur le maire li mu def tey dafa rëy ñaari délégation la ma envoyé ba pare ñëwal boppam dafa envoyé Madakaw sëñ Fallou Diop Abdoulahat Faye ak sëñ Mara Mbacké wëlbatikuwaat envoyé waat beneen délégation boo xam ne si nii Serigne Saliou ko jiite ñu xam ca Basirou Sylla Souleymane Sow ak Serigne Mame Cheikh Ka kon vraiment monsieur le maire bu nee jàpp nañu dañ koy dëggal ca lu wér la. bu ko neexoon du ko ci fekk délégation yi lay envoyé des ca soxna ayda sant nañ la bu baax gis nañ mobilisation bi gis nañ taxawaay bi monsieur le maire soxna ayda Niang mii il faut ma taxaw ci moom ndax daf maa jàpp ci jàppantuuma ayda ak mbootaay la jiite nekk ci marché bi di yaxantu may woote meeting bi. boo xoolee xartu yi ñu sol seen jaune seen seen marron beige yi cent soixante quinze mille la génnee Serigne Touba seere na ko jëndal mbootaay gépp ay mbubb tagguwuma ci bi mu koy def yëguma ko fii laa ko yëgee kon yaakaar naa ni kooku romb na ak militant ci man kon dañ koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ba ndaje mi biñ ko jàppee ba léegi yëndalul fanaanalul jannatul maxwaa gépp wër na leen indi na fi fukki mbootaay ak juróom-ñaar ak juróomi association kon ñu koy sant bu baax il faut ñu sant ko ca kaw ba ñépp xam ko Aida responsable bu ne dina ko woo waaye ku ko woo muy la Moustapha laa àndal kon kooku gor dëgg la monsieur le maire ñi la koy témoin di ko sant bu baax yaakaar naa ni bëgg-bëgg bi lenn rekk la

dina ci défar ci éclairage public bi def ci kéem katanam dana dem bay génn ci posam di def ci lo xamni sini ni maire bee ko war def ma xam ci dara man ndax bari na magal yo xamni ne si nii nañ ko budgétiser ci maire bi ca ci posam lay démé du sol carburant wu maire bi bu dé voyager pour maire bi dag bi avion pour maire bi doléance yoy noonu bu ko mënoon ci posam la koy génnee def ko waye xamnañ ni budget bi nga xamni mom la maire bi atanul doléance Touba

mooy tax suñu doléance yii mën a saafarawu DER bi dugaloon naa ci vingt cinq association fii ci janatul Jannatul waa soxna Ayda Dieng mais moo leen bind ñoom ñëpp commencé guñ leen di financé donte ya nekk bu xottu mu baax ma dugal ko commencé nañ leen financé waaye Jannatul Mahwa commencé guñ ko kon monsieur le maire dañu ci interpellé dim ñaan la ci ndimbal ñoom ñii ci DER bi ñu commencé leen financé parce que ay jàmbaar lañ courant bii ngeen di wax ak yoon bir na ma ni bu ko maire Touba ma nëga ni féete na boor président wax na ci ak moom cent quarante kilomètres bu ñëwee dana ci ñëw kon ñun suñu devoir lenn rek la mooy ànd ak moom jéem a falaat son excellence président Macky Sall mu gagné au premier tour sama frère Bassirou Mboup dafa am lu am solo lu muy faral di wax fii ci Touba politicien naxewu bi dañuy nax politicien yi ndax lu ma ñeent ba juróomi élection romb na fi ñuy jël suñu alal di ko jox askan wi te mësuñoo gañe kon dañ leen di ñaan bii yoon lillaahi wa yi ngeen jàppale ñu faralal ñu son excellence président Macky Sall mu am ndam le 24 février bu ko defee yéene ji monsieur le maire am ci Touba ñu am ko ci suñu gox yëpp mu mën a saafarawu maa ngi sant di gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakato.